parlementaire benn bokk yaakaar mi ngi ci ligne bi euh, honorable ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal suñu plateau. Euh, maa ngi leen di am di nuyu tamit euh, invité yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bu rëy dalal suñu émission nañ ci wax tey nag ñuy waxtaanee li nga xam te ne mooy déclaration politique générale du premier Ousmane Sonko. ñu teg benn question rek manam li nga xam te ne le poste du PM est-il menacé li nga xam te ñu bari ñu ngi koy ragal mooy motion de censure bi ak euh, majorité bi nga xam te ne moom no euh, jangate euh, noo situation bi honorable xam nga nag ci constitution Sénégal. fo mhm. demee ci article cinquante. Mhm. dañu né ne mhm. gannaaw bu ñu xamee premier ministre. dafa wara def li nga xam ne dañuy tuddee politique déclaration de politique générale. hmm mooy que mu ñëw àndandoog euh, askan député yi. Mhm. Euh, parce que yi nga xam ne ñoo fi toogal askan. Mhm. ndax ak député yi jàkkaarloo ak askanu Sénégal. donc yi euh, wax leen moom. moo mhm. ñu exposé ñu li ñu woowee ne grande orientation. de son programme de gouvernement. ak tamit ñu wax ñu yi nga xam ne tey ak ak mesures yi nga xam ne moom la ñu naam mettre en en place. kon a gisuma man ci affaire euh, générale boobu noonu. Mhm. Euh, lan moo waral euh, du am. du tax plus que. Mhm. pour que le premier ministre ñëw la waxtaan ak ñun député yi. ci li ñu naan ma def jëmale ko ci askanu Sénégal. Mhm. damay dégg daal dégg nañu naan premier ministre Ousmane Sonko xëy na dafa bañ a jàppaloon député yi man dama dama jàpp ne ku xool parcours premier ministre Ousmane Sonko. ak xaw ma il ne manque pas de courage. xam nga ne ne ragalu jàkkaarloog député yi nga xam ne mooy ñun. Mhm. donc ma dama jàpp ne. la ma waxoon ca conseil des ministres bi ñu mujjoon def ñu ne. Mhm. ñu ngi préparé déclaration de ma gëm ne moom dina ñëw ci assemblée nationale waxtaan ak ñun ni li nga xam ne moom la ci. faw bëgg a yóbbu Sénégal mm-hmm. ndax nag Ousmane mm-hmm. dafa nekk suñu ancien collègue parlementaire mm-hmm. di koo xam ne xam ne bu baax assemblée nationale doxalinam ak tëralinam mu xam li constitution bi wax ci article cinquante sept bi mu xam également tamit règlement règlement intérieur assemblée nationale wax en son article quatre-vingt-dix-sept muy wax ne déclaration politique générale dafa war a intervenir

muy Amadou Ba nekkoon premier ministre. Mhm. ñëwoon na assemblée nationale mois de décembre def déclaration de politique générale ñu def motion de censure. Mhm. loolu loolu moo ñuy motiver ñu député yi pour ñu def motion de censure non non non. Mhm. motion de censure li tax ñu koy def. day fekk ne li nga xam ne moom la ñu indil. déclaration politique générale bi. lañ ko doyuñu certainement. bu ñu nee loo xam ne tey. Mhm. tegu na. Mhm. dégguwu na. Mhm. yaakaar naa ne gis moom lu waral ñu war a jëm ak interface yi ñu fàtte ne. su fekkee dañ loo bokk yaakaar dafa am taxawaay bu ñu taxaw mooy mu ne l'opposition parlementaire républicaine. li ñuy ñor mooy. li ñuy ñor dëgg mooy toogal askanu Sénégal. liggéey askanu Sénégal lépp loo xam ne njëriñu askanu Sénégal la ñu taxaw donc loolu daal bëggoon naa ko leeral. ñu bàyyi nag li nga xam ne mooy la premier ministre. Mhm. waxoon na fi ne déggoo dafa tënk nañ benn bataaxal. Mhm. conseil des ministres. Mhm. ne moom dinañoo def déclaration politique générale. donc ñu ngi ñu koy ñu koy bañ a defal déclaration politique générale. déclaration boobu noonu. ñooñu xamuñu assemblée bi doxee xamuñu constitution bi wax. mais Ousmane. il est un excellent parlementaire. moom xam na ne assemblée nationale il faut ci moom. donc man dama gëm ma Adji Mergane que dina taw. def li nga xam ne mooy déclaration politique générale. Mhm. wax ak député yi. Mhm. li nga xam ne les grandes orientations ak réformes yi nga xam ne. Mhm. moom la ñu bëgg indi. li nga xam ne mooy sax programme du gouvernement. mais mais euh, bu ñu sukkandikoo si yenn experts nga xam ne ay seen xam màcc na ci wàllum euh, assemblée nationale ay juristes euh, jàpp nañ ni gannaaw ba ñu modifié li nga xam te ne mooy euh, modi ba ñu dindee poste premier ministre 2019 amna na ab coppeeku ci règlement intérieur bi ba tey ñenn ñi sax boo liiree ci yenn quotidien yenn experts dañ naan euh, gouvernement amatul benn engagement devant l' assemblée nationale loolu mun nga si indi ay leeral. xam nga interprétation. les les après la nomination du Premier ministre, mm -hmm. il doit faire sa déclaration à l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne veut pas convoquer cet argument mhm. quand Abouba devait venir faire sa déclaration du politique général à l'Assemblée nationale Et, et vous ça, les députés de l'IEU sont allés jusqu'à déposer une motion de, de, censure. Mhm. Donc, pour dire simplement, mm -hmm. il faut qu'on évite la polémique. Mm -hmm. Il faut qu'on évite, mhm. évite, cette communication. Pour moi, c'est un débat inutile. Ce qui est important, mhm. c'est que le Premier ministre mhm. a été plébiscité. Mhm. Il a été plébiscité à l'élection présidentielle de 2024 parce que c'est vrai, le président Jamal Diakhar Faye, a été élu, mais au-delà de l'élection de, de Bassirou nous avons compris que l'homme a été plébiscité. En septembre, c'est le, Premier ministre en fait, président du Parti. pourquoi ne pas le laisser Pourquoi ne pas véritablement bàyyi le président du PASTEF et le premier ministre mhm. def sa déclaration de politique générale Ousmane Sonko euh, tout le monde sait que kër doole day wax bu baax mën na wax te ñàkkul courage jàpp nañu ne kuy Sénégal yi fal nga ne am na projet boo xam ne dañ ko liggéey ba pare mhm. kooku gisuma lu war a fexe ñu ne jàpp na askanu Sénégal mhm. à travers les représentants du peuple que nous sommes waxal ñu projet boobu lan moo ci nekk bu ngeen ci tënk Mhm. lan moo war a jëm askan bi donc pour man amul débat su daan Ousmane Sonko ci boppam mhm. moo war a njëkk a bañ ñu mhm. ko ci benn carton su ko xamal ne ko waroo def mais dafa war a ñëw ancien parlementaire la ay collègues xam moom xam nañu baax ne comment ça se passe à l'Assemblée nationale il a été un brillant un excellent parlementaire et je pense que moom njëriñam lenn la ay rupture bi nga xam ne moom la ñuy prôné mooy ñu ñëw Assemblée nationale wax ñu lan la nam ma def ak son gouvernement

Euh, il faut que nous restons dans l'objectif. il faut que nous xam ne ki ñu ñor kenn rek la. Sénégal. Euh, honorable sama collègue bi Samsidine Sané am na quelques questions à ah, moi bàyyi la ak mhm. euh, honorable maa ngi lay ziar. maa ngi lay merci beaucoup de nous avoir en tout cas permis de d'avoir euh, votre expertise en tant que parlementaire et de surcroît vice-président du groupe parlementaire euh, Beno Bok Mais on aura une bonne question là, euh, c'est par rapport à, la motion de censure. il nous est rapporté ni que motion de censure, ben yon kese l'un ko déposer ci session parlementaire. Té euh, Amadou les députés de Yewwi Askan ont déposé une motion de censure mais Bobo jàllul est-ce que présentement à l'instant T euh, session bini le 30 juin est-ce qu'une motion de censure euh, est-ce que député bu mënta déposer une motion de censure oui, je nga euh, que le 8 jours il fallait un délai de 8 jours

te mm-hmm. bu ñu nee def dafa am photo général da ciy dem da ciy dem question extraordinaire mm-hmm. bu ñu ko tijjee nag ba pare jàpp dat bu ñu jàppee dat bi pour agriculture générale donc moteur de phase yooyu foofu comme je dis rek yëg yëg il faut foofu moteur de phase bi loo xam ne mm-hmm. da nga koy da nga koy anticiper loo xam ne da nga koy def ko da koy c'est pas du tout préparé si loo xam ne da nga koy préparé téye ko mais fi day ñëw di doog moteur de phase non modèle de c'est le résultat de l'appréciation. Il faut vous le reconnaître, Madame la République sénégalaise, nous nous xool nous les parlements de ce que nous sommes est-ce que li mu indi tegu na wala teguwul. problème bi mooy lan est-ce que ak askan wi la jëm parce que li ñu ñëw mooy di jëm ci askanu Sénégal donc bu dee orientation yoo xam ne am na ci liggéey tënku na Sénégal yi la jëm boobu gisuma lu waral moto de France du am le am. Euh, ñu ngi lay euh, remercier. merci beaucoup honorable merci beaucoup de la disponibilité. merci beaucoup donc euh, donc mu doonoon honorable Adjim Mbergane Kanuté vice-président du groupe parlementaire Benno Yakar il indi na ay précision par rapport ak li nga xam tane moy déclaration politique générale motion de.